dal leen ak jàmm ay eh, ñun fu ñu dem ak l'accident yi ak yi nga xamante ne si ñooy am si tali bi ubbil yéenekaay bi libération foofee ca taset naka lu yéeme yéeme moo fa dal di am benn groupe yoo xamante ne si ay élèves lañ woon ñoo daal bu seen l'école benn tracteur bu dof naka dal dee jaar seenu kaw loolee naka dem ba yóbbu ñi nga xamante ne si ñoo ñàkk seenu bakkan ñetti élèves ku si nekk naka am fukki at ak ñeenti jàpp fukki at ak juróom ñoom ñëpp ñoo mujjee ñàkk seenu bakkan am na si koo xamante ne si ñaari tànk yi la tracteur bi dal di yóbbu gannaaw bi ko alkaati arrêté nag moom ki doon dawal tracteur bi la mu xamle rek

boo bu yóbbu si dal na fi yi fippu moom ak ñi nga xamante ñoom la ànd ak tekkul naka jaaduwul loolu tax naka Sonko ca hôpital ba mu ne fa xaatime ab bataaxal nag ne fi pare na pour doguwaat naka dugaat ci grève de la faim bi nga xamante si moom la nekkoon ndax fi fimu toll ni e dootu récuser ki nga xamante si moo di président tribunal bu Ziguinchor Sonko nag nee na dafay reprendre li nga xamante si moo di grève si ñu résister si leneen moo di naka wàllu mburu bi yéenekaay bi ne naka boulanger ñoo ngay menacé naka ne fi mu toll nii boo danañ jël fukki dërëm cof ko si njëg bi waaye naka ministre bi ngàlloo nji nag njaay ne naka loolee amul naka amul benn yokk boo xamante ni si nemmeeku nañ ko wala ñu ngi koy waajal naka ci njëgu mburu googee nag moom boo moytu naka bras di boulanger yi ak waa ministère du commerce ndax fi ñu toll nañu naka courant bi seer na ak yu bëri yoo xamante si ñeel wàllum farine bi naka mënatuñ koo dékku boo moytu naka yokkute dina am waaye ministre bi ne yokkute boobu ngeen di wax du am tey du am ëllëg li ndara am ba jaaxal

lépp du am benn jafe-jafe te laay tukkee naka ci urne di ndam lu ne naka ndamal askan lay doon niki démb la doon jokkalante lenge moom ak ministre de l'intérieur Antoine Diome fi mu toll ne moom naka moo war a yore kaaraangi réew mi Antoine Diome dem na ci ministre des pétrole et des niki démb naka jokkalante nañ seen lenge yooyu ñu wax ci élection présidentielle bu ak témoin yéenekaay témoin yéenekaay xëy dalal ki nga xamante ni moo nga xamante ni laaj réew mi ci réew mi ku jóg laaj wax ci tàggat yaram ak stade yéenikaay mi dikkaat naka ci ab xel mu dal bi nga xamante si nemmeeku moom la mu préféré ko moo di ñi nga xamante si ñoo nekkoon ay naataangoom ci atum 2002 gannaaw Tony Silva ak Diatta nag moom fintoon ni nag wóolu na Pape Bouna Thiaw ngir rek mu indi njàppalem ci li nga xamante si moo di liggéey bi ci équipe nationale ñu wax ci làmb ak suñu lamb Boy Niang 2 moo ngay menacé Modou Lo nee na naka dina xam kan mooy kan bu yóbboo nga xamante ni man lutteur laa boo xamante ni si fu ne laay fëlee naka saa su ne naka ma indi ay surprise naka waaye naka kenn koo xamante ni si mën na maa cerner amul ci lamb ji moom Boy Niang moo dal dee addu naka ci combat bi nga xamante ni si moo war a dox ci digganteem moom ak Modou Lo ñoo ko déggandoo jaa ngeen ba ëllëg